Soutenons la Dara d'Oustaz Alioune en envoyant Ali Imran au 26 Ali Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chac geste compte.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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si le mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciranga ak poche def dara niñ koy baaxu ji defee fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci rixlatun ila daaril axira yaa ayuha allazina amanu taqullaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimoon borom bi nee na nanu góorgóorlu ba balaa kenn ci ñun di génn àdduna fekk ko mu nekk muslim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ci déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah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 jeexalaguñu ci waaye lii xew ci pénc mi moo metti lool te jaaxal ñu bari lii xew ci pénc mi mooy bu njëkk kuy rendilu ganaar da ngay wut ku la ko rendil waaw bu njëkk léegi mokkal nañu rendi ganaar léegi mokkal rendi xar ak bëy mokkal rendi nag ñu bàyyi ko topp ci nit ñi di rendi ak rey munoo xëy benn bés ti déggoo ñu ne karce sàngam rey nañ fa kenn wala dëkk sàngam rey nañ fa waaw mënoo ko am jaxle am lool ci pénc mi nag xanaa nu war a jóg nag xalaat li ko fi jële ñu war a jóg ñun ñépp xalaat li ko fi jële waaw te dafa am lu ñuy tuddee justice arab di ko wax la adl suñu yonent ba daa wax ne penc mu mukk amul yàlla boo jëm kanam laa qaddasallah kon ñu toll ci ñool-ñool jaa ngi jàppal fii bàyyil fii ñu ne nañ fi indi peine de mort ñu ne jëlal nañ ko fi ba noppi jëlal nañ ko fi ba noppi moom Cheikh Al xaaj Malick daan wax ne ren di sànni yëg na li nga ren di baaxut li fekk amul ci penc mi am na lu des toj li ci julli gi wutal kenn it noonu waaw lan moo xew ba ñun ñu amoon ko rey gi néew lool ñu delloo si ko rey gi bari lool ñu delloowaat ko ndax rey gi néewaat waaye jàpp nañ ne dellu gi dellu ginnaaw la parce que nun fi ne jàpp nañ ne léegi euh, weesu nañu daal loolu gis nga rey euh, peine tekkiwul ku rey ku rey nit rey leen ko loolu nit ñee ko koy waxal déedéet baatu peine bokk ci gisinu charia mooy ku tooñ fayul leen ko loolu lay tekki xisaas lay wax ku tooñ fayul leen ko defe naa dégg ngeen bi yàlla lay wax loolu anna nafsa bin nafsi maa ngi leen di ñaan penc mi mu naa ah, mu ne nit maa ko bind man yàlla wutal ko cër yi ma ko wutal mu ne bu doom aadama jëlee ngànnaay dóor ko ko ci bakkan bakkanam toj maa ngi leen di ñaan yéen ñi ma gëm ngeen tojal ma bakkanu ki toj waa ji toj bakkanu waa ji ku ne dem ci mu ne bu fekkee nit dafa foq bëtub nit ci yéen maa ngi leen di maa ngi leen di sant yéen nit ñi ngeen foqal ma bëtu ki foq bëtu jàmbur waaw mu ne wala wasenna bi sinni ku ku dóor nit kurpañ ba wadd maa ngi leen di ñaan ngeen dóor ko kurpañ moom tam ba wadd ku nekk dem poose ji nun la ko jàppe rek nun la ko jàppe kon li nga ciy dégg mooy ku dagg baaraamu jàmbur nañ dagg sa baaraam ku dagg ta tam damm tànkub jàmbur ñu damm sab tànk lu rek la lu rek la léegi loolu la suñu borom wax nañ dem ci alxuraan ci ñetti kutiba yi nekk ci albaqara te jege lool waaw ki kii nga ci aaya cent soixante-dix-huit waaw kenn ki nekk ci aaya cent quatre-vingt kenn ki nekk ci aaya cent quatre-vingt-trois professeur ñetti kutiba la ba mooy farataal nañ kutiba fara mooy farataal nañ aleykum ci yéen ñett yépp am aleykum ñett yépp am aleykum kutiba aleykumul xisaasu fil qatla kutiba aleykum isaa xadara ahada ahadakumul mawt in xayran al kutiba aleykum siyaamu dóor a ñëw xisaas du dara lu dul loolu maanaam boo ko waxee nag ñu ne waaw mais alxuraan ko wax parce que loolu charia la te nous sommes bañ koy def bu njëkk nag est-ce que nekkuñu woon nous sommes laïcs akay ah, indépendance ba 2004 mi ngi fi te nous 2004 ba 2019 mu ngi fi te nous sommes laïcs bu delluwaatoon fa mu nekkoon ñun nous sommes laïcs waaw bu fekkee ñun laïcité moo ñu gënal kay <laughs> nu nu nu rek noo ngi am yaakaar ci ne danañ ci xalaataat comme wóor ne boo reyee dañ lay rey doo rey loolu yàllaa ko wax te billaahi gëm naa ko la sëriñ Cheikh daan wax waaw xam yàgg mu ne billaahi waaye may billaahi gëm naa ko te yaakaar naa yu bari ci yéen ñuy déglu gëm nañ ko waaw ñoom ñoom asbax naa waaw <laughs> ñoom asbax naa asbax naa mbeng moom asbax naa wa asbaxal mulku lillah léegi mooy turundoom nan dégg rek li yàlla wax bi mu ne kutiba aleykumul xisaasu fil qatla daf ne al xurru bil xurri ñu ne ko waaw mu ne wala abdu bil abdi ñu ne ko waaw mu ne wal unsa bil unsa daal ne fa man ufiya c'est-à-dire nit mën naa rey nit ba noppi ñu baal maanaam mbokki kim rey baal ko tey jànq bee ñu rey ca Tàmba ak reyin wu doy waar wii ak niñ amee woon yaakaar ci moom réew mi am ci yaakaar war na jural réew mi ay doom war na am responsabilité bu bu mu am la yaayam ak baayam tedd cay teraangaam ndeysaan ah réew mi tedd ci teraangam yaayam ak baayam teg tedd ci teraangaam mu mu war fee nekk waroon fee nekk jaamu sunu borom est-ce que nekkul sax ci ci koor jenn waay ñëw def ca lam ca def yàlla nee na dama bëgg ngeen jàng fayul ku ñu tooñ avant muy indi koor gi nag mbokk yi parce que loolu ci aaya 178 la ko def te ci koor gi 183 la ko def bi waxee loolu mu ne alxurru bil xurri jaam bu rey as gor reyal leen ma ko gis ngeen ruux yàllaa ko jox ku ci ne ci ñun waaye boo jëlee bosu jàmbur yàlla ne moom mu jël bosu jàmbur jëlal leen ma bosam nu ne ko doon ko jël yàlla xam na ne bu yemal xiyaama dana ko àtte falaa wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxaakimuuka fi ma shajara baynahum moo tax ba dem ba mu indee ñetti catégorie yooyu al xurru al abdu al unsa daf ne fa mun ufiloo min axi shay buñ la baalee kon waajuru góoru kii ñu faat nii su baalee waa ji ko def ah fattibaaun bil maaruf wa adawun ilay bi ihsaan dafa am ndàmpaay bu ñu lay gàll ndàmpaay bu ñu lay gàll waaw sunu borom na lii nag woyofal laa ko def ngir bañ ngeen rey rek waaye fa ma fa man ictadaa bada dalik ku defati parce que nit bu reyee buñ ko reyut bu reyee buñ ko reyut wala ñu teg ko daan bu ko ëpp doole fekk dañoo baale nag fekk dañoo baale ay mbokkam baale ñu ñu ñu laaj ko ndàmpaa yu téeméeri giléem yoo xam ne moo koy wuti ak i bokkam quarante giléem yi jigéen la ñuy doon tabarkalla am na ñu dem ba ne jigéen la ñuy doon sax dañu nekk jigéen jigéen wérut mbokk yi loolu mooy peine de mort ci gisunu lislaam mooy fayul ku ñu tooñ waaye jàpp ne ku dugg ci oto sax bu këppoo ka ci faatu ñu ñu rey la waxewut noonu de déedéet di di di di di fetal far mooy dal nit ñu rey la waxut lool de waxut loolu de yuuxu nit mu far faatu ñu rey la waxut loolu de déedéet li wax mooy ko rey te tey ko te bokki na nga baalu la dañ lay rey dañ lay rey de Umar ibn Xattaab daana wax ne ci wàllu dindi peine de ak delloosi ko ne na kër gi daa war a am ab yar gone yi di ko gis même boo dul kër gi daa war a am ab yar gone yi di ko gis même boo dul dóor bi yàlla ne kutiba aleykumul xisaas nag foofu moom ci alxuraan dañu ne ko non bàyyil ñu abrese loi boobu waaw bàyyil ñu dindi loi boobu waaw nañ ko dindi ndax ñun xisaas daal moo tax penc moo gis du am xisaas du dox mooy fayul ku ñu tooñ loolu mooy maandu dëgg nag mooy fayul ku ñu tooñ waaye ñun sunu penc xam nañ ko nangu nañ ko tooñ ku fayu lañ nanguwut mbokk yi borom subhaana taala baamtu na wasiya boobu mooy ki ki toll ci faatu walla mu ragal ci boppam faatu alalam alalam na waxi borom ñim ameel ak ñi ko ameel na ko leeral ñi mu bëgg a may ci seen alal waaw démb menn mbokk woon ma mu baax ni ma damaa am kër yu bari ma ne ko waaw mu ne mu am ci genn goo xam ne dafa am ku ma dëkkal ma gis ko ci mbaax ak njub te munta faste xànc ak moroom ja sama kër yooyu ma bëgg dajale sama njaboot waxtaan ak ñoom jël këyitu kër wa bind ci turu kooku def ci sama armoire wala ron njaganaay bis bu ma yàlla moomee samay doom génn kayit wi ne ko diw sunu bàyyi moo la may këram gii mu ne ma ndax loolu mën naa koo def lisaan may lox tontoo guma ko may lox waaw tontoo guma ko de bi ma ko tontoogul maa ngi lox waaw ma ne ko bu fekkee sa alal kër googu ngay joxe boo xaaja sa alal ñetti xaaj kër gi du génn benn xaaj ba man nga koo def mu mu daal di yëkkat moom tam waaw gis nga loolu la yàlla bëggoon ku ne ci sukuraat wala ku feebar mu def ko buñ ko defee noonu la buñ ko defee nag salaamaaleykum loolu bu fekkoon temb li dañ àgg ba ca fa man xaafu min moo sin janafan sunu baam dal caate kutiba aleykum siyaamu ñaar yee ñu bañ ko siyaamu nag ci lañ nag waaw siyaamu ci lañ nag te gis nga koor julli dem màkka natt asaka yëpp dafa ñëwoon li taskee ci nafsi ngir yar sunu bakkan boobu yàlla ne acc ñu ne acc ma tax koor nga gis mu jeexale ko laalakum tattaquun noonu la jeexale koor waaye bi muy wax alxisaas muy jàng nu ñuy faye nu ñuy fayule ku ñu tooñ foofa ba mu jeex daf ne laalakum tattaquun waaw waaw bi mu ñëwee ci ndénkaan googu ci testament bi ma doon nettali kii ak góor gi nii dafa waxit xaqan alal muttaqin mu yéen waaw bi mu ñëwee ci koor daal ni laalakum tattaquun ah waaw moo di ragal yàlla mooy am ragal yàlla mooy am ñu mën a def yi muy digle mën a bàyyi yi muy tere euh, député yi ñoo daje woon ci assemblée national te jëfewuñu woon ndigalu maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz wala sunu waajur wa ndax daf ni woon yéen député yi nekk assemblée nationale bu ñu leen indilee lu ñuy wate balaa ngeen koy wate ñaar ngeen cee seet ki fi indi loi bi bu ngeen watee loi bi lan la koy jural moom waaw ki fi indi loi bi maanaam bu ñu ne woon tabaski gii di ñëw assemblée nationale ñu indi leen benn benn benn benn article wala benn xam ni ñu ko tuddee professeur ne leen dañoo bëgg benn proposition de de de loi waaw defe na nun la merci beaucoup dañoo bëgg tabaski deux mille dix neuf ñu tabaskee kaña ñu indi leen loi boobu te bàyyi tabaskee xar. ku ñu indil loi bu mel noonu war ngaa taxaw càmbar ko ndax sunna li fi yonent bi ñu tabaski xar junni at lu topp ci ren ngeen ñëw bëgg a walbati indi tabaski kaña loolu xaaj Abdul Asiis nee na seet leen bu bu ñu bàyyee tabaski xar tabaski kaña lan lay jural ko indi loi bi bu fekkee président moo ko indi waaw muy benn bu ñaaral ba seen diggante peuple bi leen faloon pour ngeen dem almalaw peuple bi nga xam ne ñoo tànnoon ay député ñu toog leen assemblée waaw alaa kulli mbokk yi fayul ku ñu tooñ de moo fi moo fi mën a jëleeg tooñ fayul kuñ tooñ moom rek moo fi mën a jëleeg tooñ ndax moom la baram wax ne walakum fi l qisaasi xayaatun yaa ulil albaab teg ci laalakum tattaquun waaw bu la ko professeur Assane Fall jàngal firiloon dëkk ci yëmbal ndeysaan waaw dëkk ca yëmbal ca wetu jàkkay ndawen <laughs> waaw mu ne eh, laalakum tattaqun wala boog walakum fil xisaas xayaatun bu la ko Oustaz Omar Fall ba wax lu tax suñu borom jiital walakum lu tax mu jiital ak waaw lu tax waxut lakum fil qisaasi lu tax waxut alqisaasu xayaatun xanaa wa lakum fii alqisaas moom ni la ko doon firee ndeysaan waaw nga yëg na am na solo waaw tabarkalla ñaara ngi ci kër gi ku ñu wax xorom ak ku wax suukar ku ñu wax xorom ak ku ñu bi la xellee kaasam meew nga fab kuddu suukar def ca boo yënga leen naan waaye bu ñu la xellee meew nga tibb kuddu xorom def ca doo mën a naan ni xorom si mel ci ci ci ci meew mi ak ni suukar si mel ci meew mi wuute na trop tax wax yàlla nun la mel mooy suukar si coow laa ngi bari nag wax jaa ngi bari nag waaye daal ñëpp a jaaxle ñëpp a jaaxle kere bi ñu rendee ci Pikine soxna sa soxna sa njaay ah seete loolu kër bañ ko rendee ñu ubbi enquête ñu rendi keneen barab sàngam ñu ubbi enquête ñu rendi keneen barab sàngam ñu ubbi enquête rek la xam naa ñëpp a ngi ñaan waaye daal yàlla de lii wax moom man de gëm naa ko man de gëm naa ko te itam ku gëm alxuraan it gëm ko mu ngi fi nag moom téere bi nii rek ku génn àdduna bëgg ñu wàcceel la ko ku ñu denc mën a bëgg jàng ay xul wala waxat xam naa li ci des daal mooy <laughs> teg suñuy mar su xonq toog suñuy kër koo xam ne kii weddi nga alxuraan ji mbaa nga weddi ci laaya boo nu woowee tudd doom nu bañ boo nu woowee may jabar nu bañ waaw boo ñu woowee léemu séet nu bañ waaw waaw nu ñaanloo nu bañ te du suñ kër rek teg suñ marché yu xonq te bañ a def grève de faim mbokk yi lii ab bind la woon bu dox suñ digganteeg eh, bu ñu doxal ci diggante bi ci biir waxtaan wi ñuy waxtaan lu jëm ci liggéey